de Dakar réalisé ko ak équipe municipale bi ñooyu conseiller war a fësal ni ah, maanaam am ci satisfaction totale assumer pleinement Madame, bilan bu bu baax boobu nga xam def nañ ko fii ci ville de Dakar loolu mooy deuxième concours. clarification bi nag li ñu bëgg a conseil municipal la ville de Dakar dafa mës a famille dafa nek famille bo xamni nek une équipe ñu andando di liggéey bi ñu démarré li nga xamante Dakar waayu fal nañu ko muy mission bi en 2014 yalla dogal nguuru Sénégal am forfaiture ak injustice bo xamni tek nañ ko ci kaw ki nga xamni mom la Dakar waayu tànnoon muy le président Khalifa Ababakar Sall. ñu bëgg a foqati li nga xam ni mooy ville bi ci moom pour nangu ko loolu jur ñu am ay procédures yu ñu tàmbali ci moom bi ñu tàmbalee procédure yooyu ci moom le président Khalifa Ababacar Sall tànn ki nga xamante ni mu mës sës ci moom rëkk te mësu koo rëkk ndax dañu am complicité dans le travail ndax dañu bokk ay valeurs muy madame le maire Soham El Wardini mu ni ko yow yaay assurer sama intérim le temps que li nga xamanteni ni ñu ngi koy jéem gattal sama der te ñepp xam ni teguwul fenn ñu léral ko ci kanamu askan wi biñu ñu procédure bobu di continuer ba procédure boobu di continuer ngeen may ñu rek ñu yeggali wala ah madame la maire moo egsi ah madame la maire moo egsi kon ñu may ko même mu egsi nii toog ñu continuer première femme maire de la ville de Dakar.

ñeneen ñi nekkee ne ci salle bi ak conseillers yi nga xamante ni ñi ngi ci fi nga xamante ni les différentes communes ñëw fekkee ndaje bi pour résolution bi nga xamante ni ñoom bëgg nañoo fësal wane ni yow mii di madame le maire tey de la ville de Dakar yàlla ci mbaaxam ak dogalam mu def la nga doon la première femme maire de la ville de Dakar loolu nous faisons seen jàppale ak and ak yow ci liguey bi ñu jot liguey ak fiñu jëm ëlëk war ko wan Dakar way fofu la ñu may expliquer bi 2014 le président Khalifa ababakar Sall xew-xew yoyu amé muni ni kenn doyu ko ci kudul madame la maire am Wardini bi nga xam ni àndoon nag moom di liggéey te mu xam ni vision bi mu am pour Dakar moom mii mën na ko réaliser ndax ñoo bokk nu ñuy doxale ñoo bokk ay valeur bi ñu demee ba procédure yooyu di gën a yaatu ba nguur googu li mu bëggoon muy fuqati mbir mi ci loxo la président xalifa Ababacar Sall président Khalifa Ababakar Sall ko mom niko soam El Wardini budul yaw kan lay doon ci ma la ñaan ko conseil municipal bi ak ku Dakar ñu falat ñu fal soam Wardini mu nek, madame le maire de la ville de Dakar bi eggali vision bi nga le président Khalifa Ababakar Sall amon nako pour les Dakarois lolu bi mu amé. Les lo xamni ñun conseil municipal, yi nañ ko ci vision ak projet yi président Khalifa Ababakar Sall amone lu mu ci madame le maire lu mu ci def une gestion saine une démarche participative équipe municipale bi di liggéey indi ci fan di ngeen am ci biir campagne bi ñu war leen a présenter bilan bi nga xamante ni liggéeyal nañ ko Dakar waaye ak fan la ñu jëm ak ñoom di fàttali rek ndax fàttali dafa am solo suñu borom moo ni fazakirina fati zikra del fàttali ndax nit kuy fàtte la muy jëm ji toog àndam ak le président Khalifa Ababacar Sall xëy na sax yàgg na tàmbalee ca Benno Siggil Sénégal 2009 waaye rek su may gaawal damay ñëw ci 2014 moom mii membre fondatrice la bu taxawu Dakar bi nga xamante ni tey mooy porter candidature bi ndax taxawu Dakar moo màgg ba doon taxawu Sénégal taxawu Dakar yàlla dogal mu ànd ci ak le président Khalifa Ababacar Sall 2014. mu diriger liste maire yi commune bi nga xamante ni mooy Mermoz Sacré-Cœur ma leen di leeral ni jëmm ji toog moo doon tête de liste Mermoz Sacré-Cœur ma leen di leeral ni jëmm ji moo gagné 2014 Mermoz Sacré-Cœur ma leen di leeral toog ci dégg ndigal ak fas de liguer ak le président Khalifa Ababacar Sall ba gagner gagné Mermoz Sacré-Cœur en 2014 Le co président Khalifa Ababacar Sall n'est ko man malay lay ñaan ni mel man ak ci àndandoo mën a liggéey nga bayyi commune bi ñew ak man à la ville de Dakar mu mel ne Khalifa visionnaire le bu gisoon li wara xew ni nga ñew ak man à la ville de Dakar def ko première adjointam ñu ànd ci liggéey bi loolu moo jur ba ni mu remplacer Khalifa Ababacar Sall fii ci mairie bu Ndakaar loolu du hasard lu yàlla suñu boroom dogal la loolu nag bi mu amee mu liggéey fi liggéey bu am solo conseil municipal bi comme mësuñoo réeroo surtout ñun ñi nga xamante ni ñoo àndandoo woon ànd ak le président Khalifa Ababacar Sall pare ànd ko ak moom ñu gis li ñu jot a liggéeyu Dakar waaye gis ko ñu gis naal bi ñu am nga xamante ni Dakar fii ñu jëm ci moom taxawaayam ñu respecté dakaar fépp ci àdduna bi ñu gis sommet yi gën mag ci àdduna bi war a am Dakar ñu gis JO 2022 yi war a am fii Dakar ñu gis sommet bi nga xam ni wàllu ndox o fii lañ ko war a waxtaane ci dakaar ñu gis li nga xam ni forum économie solidaire yi àdduna doon xëccoo mu war njëkk am Afrique muy amee ci Dakar ñu gis ni moom en un rien de temps mu nar def Dakar capitalu Afrique loolu ñu war a waxtaan ak Dakar waaye fan lañu war a jëmalewaat bilan bi ñu ànd ak moom ni ko ñun dañoo pare pour sampaat sa candidature nga jiite ñu continuer li ñu naal ak askan wi waaye nag moom jigéen la joo xamante ni baaxoowul wax lu bari liggéey tekk ak am kilifa lañ ko xame mu ni ñu dafa am fu ñu bokk man dama bokk taxawu Dakar bokk ci membre fondatrice yi taxawu Dakar boobu lépp lu may def taxawu Dakar a koy def Moi, mon mu candidat à la candidature de Yewwi Askan Wi ci biir taxawu Dakar taxawu Dakar nag bokk ci coalition ndax taxawu Dakar moo mag, ba jur taxawu Sénégal taxawu Sénégal beaucoup ci coalition bu tudd coalition Yewwi Askan Wi donc coalition Yewwi Askan woowu am charte bu mu am ay circulaire yu mu génne mooy xamal ni ñoom ñi ànd nga ni ay parti politique yu bëri la ak ay mouvement gox goxaat yi dana am ay xëccoo yuy am waaye élection yi ñu jëm charte yii lañ ci nar a demee charte yooyu ñu ci nar a demee képp ku ci nekk déposer sa candidature foofu nga bokk ñoom ñooy tànn benn candidat benn candidat bi ñuy tànn moom mooy ñëw doon candidat à la candidature pour Yewwi Askan Wi par rapport ak poste x wala y maanaam lu mel ni mairie ville de Dakar moom nag dafa mës a tënku ci kilifteef mu defe ko ni ko charte bi waxee mooy ci biir taxawu Sénégal taxawu Sénégal mooy def képp kuy doon candidat taxawu Sénégal moo lay defal lettre d'accréditation wane ni moom taxawu Sénégal mandataire bii nga xam ni Khalifa Ababacar Sall moo ko tànn muy Cheikh Gueye wax na ni yow taxawu Sénégal investir na monsieur X ou madame Y mu nekk candidat wu taxawu Sénégal à la candidature de Askan Wi ndax lii leer na loolu ba fii ñuy wax ak yéen amul kenn koo xamante ni bokk nga taxawu Sénégal ku am këyit woowu ma baamu ndax mu leer dama ni amul mbindeef bu nekk tey ci biir taxawu Sénégal bu la mën a wax ni candidature Dakar ni ko charte bi waxee nga xam ni dañu parti yi ak mouvement yi ñoom ñooy déposé parti bu ci nek ben nit ngay déposer ci poste à pourvoir bu mu meunti doon nga xamni dañ lay jox lettre accrédité wané ni taxawu Dakar Sénégal moo ni soo am wadini bi par exemple def investir nañ ko pour mu nek candidat à la candidature bu taxawu Sénégal ci biir yeewi askan bi lolu amagul ci kenn tay fiñu tollu moy au Sénégal goul kan moy donne candidat à la ville de Dakar madame le maire vous wax ci bari ñi ñuy interpeller bari Dakar roi yi nga xamante bi mu dafa en plus de sa loyauté en plus de sa fidélité en plus de d'avoir porté haut le flambeau qui a été allumé par Khalifa Ababakar Sall mu tënku ci kilifteef jaarale lépp fa mu ko war a nit ñi xëy di dégg ni diw du doon candidat comme madame le maire wala nangam mu laaj ñu taxaw ak askan wi leeral leen ñu xam ni dem ji tok di madame le maire Soham El Wardini est bel et bien candidat, candidate à la candidature de Yewwi Askanoui, Wi ci biir Taxawu Sénégal loolu ñu bëgg mu leer ci bopp ñépp gis nañu nag ay notes yu bari yu génn waaye yooyu jàpp nañ ni jarul solool ndax toll nañ ci moment yoo xam ni ay manœuvre politique ak ay ak ay mbir bari na fi lool waaye lenn rek la ñuy wax mooy décision bi taxawu Sénégal moo koy jël le président xalifa Ababacar Sall ak équipe am ñooy décider ni mooy nekk candidat taxawu Sénégal à la ville te loolu ba fii may wax ak yéen. beneen information bo len ci jot que ni lolo amagul japp len ni c'est une info information erronée c'est une fausse information taxaw Sénégal eggul fofu c'est de la manipulation ngeen xamni aussi fi nga xamante ni fa lañ jëm élection locale yag nañu dund yu mel ni waaye dañ ni ko am kilifa du gàggandikoo ci mbedd mais it askan wi ak militant yi mënuñu leen bàyyi ñu jaaxle am njàqare yaakaar ni madame le maire nekkul candidat ci loo xam ni ñoom dañ ko ci doon xaar moom nag candidature ni ma ko waxee da koo weesu moom ñun ñii fa ñu dëkk gox ya ñu nekk madame le maire mii faluju fa

doonul rek nos frères et camarades socialistes mooy la composition de taxawu Dakar taxawu Dakar maanaam lii ngeen di gis nii la dafa bari ay parti yoo ci ay moment yu mel nii bari na ay manœuvre yu daan am bari na ay manipulation yu am waaye ngeen xam ni candidat waa bu dee loolu am na kon naka la waxe waxee ni tànn nañu ba pare wala diw naan moom lañu ñu nangu candidature am bañ candidature keneen taxawu Sénégal war ci jël décision li lañ leen bëggona léral ba mu lér nañ ci seen bop en wolof dog leen a defal résumé bi en français am motion bo xamanteni sama sœur madame Aminata Diallo day ñëw fi ma top lire ko defaa leen leen résumé bi en français nga xamanteni ni dana madame la maire pour nous continuer la vision du président Khalifa Ababacar Sall portée par cette brave dame portée par cette dame de fer portée par cette dame loyale portée par cette dame fidèle bi nga xamante ni Ndakaaru est la mu taxaw nous continuer li ñu war pour les Dakarois ma sœur Aminata Diallo nous venons lire motion Merci beaucoup, Monsieur le maire Badara Merci à tous les membres du conseil municipal qui sont ici présents et sympathisants. Merci à tous ces militants et militantes de Tahaou Sénégal, de Tahaou Dakar qui ont bien voulu faire le déplacement pour soutenir leur sœur, Madame Swam El Wardi. Tahaou Sénégal, Tahaou Dakar et conseillers municipaux et sympathisants. Résolution. Nous, membres de Tahaou Dakar, conseillers municipaux et sympathisants, réaffirmons notre soutien total à Madame le maire de la ville de Dakar, Swam El Wardini. Soutenons la candidature à la candidature de Swam El Wardini à la ville de Dakar. Rappelons que conformément à la note circulaire numéro 001 de la coalition Yewi Askanui, les candidatures individuelles ne sont pas recevables. Il est clairement indiqué dans ladite note que les candidatures des partis ou mouvements sont déposées auprès de la commission départementale ou de la commission communale des investitures compétentes. Précisons que Tahaou Sénégal, en tant qu'organisation politique, n'a pas encore déposé de candidature au sein de la coalition Yewi Askanbi. Je souhaiterais ajouter quelques mots par rapport à cela, par rapport à Madame le maire, par rapport de 2009 à aujourd'hui. C'est la seule femme, mais c'est pour la première fois. Khalifa Sall prend une décision qui est historique. Un maire de la ville de Dakar qui donne des responsabilités qui donne de grosses responsabilités aux femmes, je crois que ça, c'est à magnifier. Elle, choisit ou propose une femme à la tête de la ville de Dakar. C'est une première de toute l'histoire politique du Sénégal. Et ça, c'est à magnifier. Donc, nous demandons à M. Khalifa Ababakar Sall et à Tahaou Sénégal de perpétuer cette histoire parce que c'est la seule femme sur 19 maires de communes, euh, maire de ville de Dakar, c'est la seule femme. Donc sur 19, les leaders c'était s'étaient engagés ici au Sénégal à, dans les listes, qu'il y ait 10% de maires femmes. Aujourd'hui, nous avons une grande dame à la tête de cette ville qui a un bilan dont tous ses conseillers et tant d'autres qui n'ont pas pu venir vont défendre dans les rues de Dakar prochainement une dame qui est une mère et une mère exemplaire, une dame qui s'est penchée sur les problèmes sociaux de Dakar, des familles, des femmes et des enfants et des jeunes, en termes d'emploi, en termes de santé, en termes de voirie, en termes d'éclairage public, en termes de tout ce qui est social. Je crois que tout est mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez le soutien de Dakar, vous avez le soutien du conseil municipal, euh, du conseil municipal, c'est-à-dire de ceux qui sont à Tahou Dakar et d'autres même qui ne sont pas à le président Khalifa Ababakar Sall moko formel bopam ñuy jox kàddu rek ñi nga xamanteni mo fi teewal caucus des femmes leaders bi nga xamanteni ñom dañu fessel ni candidature madame le maire Soham El Wardini ñom kenn du leen ci jittu ñom jigéenu leader madame Nafissatou Wade ñew teewal leen fi madame Nafissatou Wade vous avez la parole aleykum ñu ngi nuyu mbolo mi nga xamni ni ñoo fi ñëw waaye ñu ngi nuyu mbolo Sénégal yépp tay parce que xam nañu li ñuy def àdduna wërngël képp ñu koy gis di ko déglu waye surtout tamit bàyyi nañ ci xel ci aduna bi yépp di wax ni tay man soxna na fa satu wat présidente nationale de convergence de Goudiaby membre fondatrice du caucus des femmes leaders dama teew fii tey ak samay yeneen yu nga dañu caucus des femmes leaders Petit ci mel Aram membre fondatrice du caucus des femmes leaders madame Nyan Sarko, Kinde qui est la présidente nationale de Dajdef de cher El Sène membre du caucus madame Abimenga, responsable du FSDBJ conseillère municipale à la Médina madame Ndeye Fatou effectivement, qui est adjointe au maire de Wakam, mais aujourd'hui aussi, qui est membre du caucus des femmes leaders. Madame Aret Ndoy, qui est la présidente nationale de MPCL de Gadio, membre du caucus des femmes leaders. Aujourd'hui, nous sommes là pour représenter Madame Fatou Sossar, la professeure présidente du caucus des femmes leaders et du programme WPP parce que dafa am solo lu tax moo wax ko ñun jigéen ñi nga xam ni ñoo bokk ci caucus des femmes leaders nekk jigéen ñu nga xam ni dañoo jege fu nekk bokkuñu fi ñu jógee ci wàllum politique bokkuñu fi ñu jógee ci wàllum syndicalisme bokkuñu fi ñu jógee ci wàllum société civile waaye dañu xool rek ni que ay citoyennes sénégalaises lañu

Si Sénégal su ñu ne am nañ 557 communes ñu gis fukki maire ak juróom yi nga xam ne tey ñu ngi leen di félicité néew nañu waaye seen qualité travail gis nañ ko te ku ci mel ni Soham dëggal na ko firndeel na ko wane na ko moom exemple la kon ñu au-delà de la ville de Dakar d'abord le caucus des femmes leaders appelle les Sénégalais à voter massivement les listes qui sont dirigées par les femmes

wax la baat bi nga nangul ñu ko ni kat fu ñu mën ci toll yaa xam da ngay demal sa bopp yaa xam da ngay dem coalition engagé wu nga pour li ñu bëgg mooy au moins ñu am 10 pour cent incha allah en 2022 kon tey ku engagé wu dañ naan su engagement amee jëf day am tey nattukaay bi lañ nekk ñu ngi nekk ci ay période investiture moo taxoon bërkaati démb le 24 dimanche ñu xëy suba teel yàlla def aussi mu nekk fii ci biir Dakar la capitale bi nga xam ni la prés madame Soham El Wardini maire première femme de Dakar mu ànd ko ak ñun ñu def ko du woon doxu ñaxtu doxu fàttaliku la ndax kaddu dafa am solo moom fa mu bokk yàlla dafa def leader ya fa bokk ñoom ñëpp. Nous avons un engagement humain. Nous mel dit fait d'abord pour l'égalité des chances il faut qu'il y ait la candidature de Mme Soal et Wadini parce que le caucus des femmes leaders aussi travaille pour l'égalité des chances. La première chance d'abord c'est de pouvoir être candidate et demain pour que les Dakarois Motelissé seen aient avoir encore Soham Wardini reconduite au soir du 23 janvier 2022 Inch'Allah, allah mu toog ak fii nekk maire yeggali liggéey bi nga xam ne moom la kon loolu moo tax bi ñu indi ko mu ñëw nak andi ak ñun ndax mom dafa bokk des femmes leaders aussi waaye mu ñëw taxaw ñu ni ko ñun ñoo investir le caucus des femmes leaders en tant que candidate à la candidature waye moom mu ñew deugal bopam ndax loolu dafa am solo tamit mu ñew deugal bopam wane ni dafa reconduire gën fessel fesal gën a dëgëral taxawal candidature kon mënu ñu lumay soutenir ko et aujourd'hui ce que nous nous demandons en tant que caucus des femmes leaders té dinañ ci am yaakaar parce que du ay jigen kase nam nak jigen ñi ci combat yi nga xamni dañu bayyi lepp indi ci kanam mu mel en 1945 aujourd'hui on part de candidature Amna na jamono mënuñu woon voté femmes yi dañuy transcender lépp ànd nekk dem li ñu bëgg ñu am ko mooy ñuy voté kon tey femmes yi dinañ ànd ak nekk benn ànd ak seen ay doom ànd ak seen ay borom kër ànd ak seen ay frères ak ñëpp wax ni candidature bi kenn mënu ko parce que la wax dëgg yàlla liggéey na fi lu nga xam ne na fay taxaw donc nous rappelons solennellement aux leaders politiques leur engagement à accompagner les femmes. Nous rappelons solennellement aux leaders politiques l'engagement qui a été fait avec la présidente Fatou Sossar, et les images sont encore là, de soutenir les candidatures féminines. Donc nous ne serions acceptés que la candidature à la candidature de Mme Forme Elwardini première femme de la ville de Dakar, ne soit pas remplie et surtout soutenue par tous les leaders qui sont dans cette coalition à laquelle elle appartient. Ils se sont engagés, nous demandons le respect des engagements. Nous rappelons également aux Sénégalais et nous leur demandons justement de voter massivement

pour lepp li nga xamni bu naaree nek injustice ñu ngi ci waye taxaw ba nga xamni candidature bi dina jall taxaw ba nga xamni aussi vote bi dina massif pour toutes les femmes qui sont candidates inshallah rabbi ma ngi gëreum ñëpp di sant ñëpp alhamdoulillah rabbil alamin jërëjëf jërëjëf merci madame Nafissatou Wade gis naa ni bi nga doxalee tuuti suñu yaay ji nga xam ni tey yàlla def na mooy yaayu ndakaaru ndax dafa doon maire doon maire ñaari yoon xolom tooy na ba mu yëkkati mouchoir ndax fu xare na taxawee rek jigéen ñi féete nañ ca kanam jigéenu Sénégal mësuñoo yaafus ci dara loo xamante ni war na jëmale Sénégal kanam tey nag jàpp naa ni même ku amoon looy lux wala looy xalaat boo déggee kàddu jigéen ñi sa yaram war naa daw te benn développement mënul am sans les femmes et may wax nag kii waaj a jël kàddu conseiller municipal monsieur le maire Babacar Diop

pour Madame la maire. Et je pèse mes mots. Politiquement, qui connaît soit Mouardini elle a été toujours victime de politique politicienne. Et que ça doit cesser. On doit dire à l'autre camp, le camp des comploteurs, qu'on a tout compris, Maintenant, il faut que Dakar se lève et dise non. Je veux que la salle, Mifitok, ne nous joue légui acclamer la candidature de Madame Lambert. Maintenant, Fekeni. soit Mouardini, avec son conseil municipal Demne, na référence pour l'État parce qu'il faut que commencer si on parle de Dakar ville propre c'est l'inspiration de madame la maire même récemment le chef de l'État a pris des mesures pour vraiment se lancer totalement sur la propriété de la capitale Béninbi, bi inspire ba l'État l'État fait le tour des communes pour éclairer les rues et les ruelles non c'est sa politique qui l'inspire et tant d'autres nous nous décidons. Somme à fait de Dakar la capitale mondiale on prépare le forum de l'eau on prépare euh, la solidarité de, l'économie sociale et solidaire on prépare les JOJ 2026 mais maintenant dites-moi Dakarois pourquoi nous, pas nous les bras croisés et laisser les autres continuer notre projet nous disons non nous sommes pour la candidature de Madame Souam et merci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

man fi masali lii may wax dama ko tibbee sama biir xol su ma fi toogee su ma fi ñëwul tey taxaw ci wetu jëmm ji ma xam ne man duma gor ndax gis ngeen kii dañ koy bàyyeeg yàlla ndax segam borom yàlla mooy borom bët bu rëy bi yàlla na ko yàlla faral ci barke Seydina Muhammad Lamin sallallahu alayhi wa sallam li tax du may di wax ku ma xool xam ni que li tax du may di wax man dama xamul te dama jege lu bari te lu bari dafa jaar sama loxo man ville de Dakar bii mbokk bu fi liggéey man ville de Dakar bii élu laa fi élu laa mais awma ma mbokk bu fi liggéey waaye jëmm ji yàlla daf ma booleeg moom tey li mu recruter ci ay nit mën naa ne majorité bi yëpp sama loxo la jaar mi ngi nii toog amul benn mbokk bu fi liggéey kii chef de cabinet te chef de cabinet da ngay ut koo xam ne dalaa jege nga mën ko tek sa wet mu sutural nak Khalifa Sall bir ak bit limay wax dama bëgg góor yëpp diko do ndax man Khalifa lay noyé man ku laal Khalifa la nga ma ku jege Khalifa jege nga ma ku ko wax loko warul wax man ma dal sa kaw mais gor gi dafa téye Khalifa Sall te yàlla tax ndax ba xalifa soxlaa nekkee ci tolof tolof mu jàpp ci sonn ci bay bëgg a dee moo tax en général su may dégg nit di wax que ni man maa xeexal xalifa sàll dama foog ni ñun dañ ñuy fàtte dama ne yenn ay journaliste ngeen seede leen xalifa sàll combat wam yan ñan ñoo ko porté bu dul ay jigéen du ma ne nag ay góor bokkuñu ci ndax su ma ko waxee doon naa féq waaye li ci ëpp ay jigéen ñoo ko porté te man mii ngeen di gis man ma toog nii bokkoon naa ci ñii di initier combat wu Khalifa Sall kon jëmm ji desalul dara xalifa Sall xam ngeen kii li tax ma tàpp jàpp ko du man la defaral dafa defal ay nit mu jaare si man kon man dama war a ànd ak moom sëngeem wala ma ànd ak moom jóg li wax dama bëgg góor yëpp di ko kii damay ànd ak moom sëngeem wala ma ànd ak moom jóg ba faw may ñaan nag leader yu yeewu askan wi daf leen très attention ndax politique biñu jëm ni élection yu ñu jëm ni dafa doy waar té gis nga nit duma critiquer kenn ndax man amuma pour critiquer kenn duma wax kenn lu ñaaw ndax yaré wuñ mako mais dama ni gor gi amna lo xamné xam warul leen ko ko def té da ngeen taxawoon Fun City ñu tok ci kanam ñeen jël seen cadeau jox ñu nañu que ni ñi dinañ am 10 ci élection yi kon ñun tay dañ leen di ñaan ngir yalla ak yonenté bi man de su fi bëgg naa ngeen porter candidature madame la maire Khalifa Sall na ko porter ci taxawu senegal waa ñu yóbbu ko yeewi askan wi waa yeewi askan bi porter candidature am ànd nag bu ñuy ànd nañuy waxante lu rafet ndax politique bi day jeex te ay mbokk lañu politique bi day jeexte ay mbokk lañu politique bi day jeex te ay mbokk lañu nañu rafetoo àddina bi jarul lu ñaaw kii deful kenn lu ko nit waa waxee lu ñaaw. te keneen deful keneen lenn lu ko nit war a waxee lu ñaaw kon mën ku nit ku ci nekk mën nga ànd ak ki la faral nga def ko ci adversité pas ci animosité nga def ko ci respect ak ci retenue ma leen di ñaan nag lii ma leen di ñaan lii ma dox nii dama bëgg man damay ñaan journaliste yi fi toog lii ma wax nii boo leen

ak nekk maire ñu ni ko ràpp ci kaso bi tëj ko ndax Xalifa Ababacar sàll bi mu nekkee kaso waaye moo ne boobu nguur gi ñim soxla bari na de nguur gi ñi am ndomba tànk te bëggoon a wuy ji ak ñoo bari mais moom mii sofi ak ay moroomam lañu boole ak jëmm ji dugal ci kaso bi ndax ñoom jigéen ñi kese ñoo ni comme góor ñi mënatuñ ko régler dañuy dox direct dem ca palais biñ leen arrêté ñu tëdd ci tale bi ñu boole leen ñoom ñëpp ni leen ràpp ci kaso bi yéen yéenay jigéen yu mën góor yéen en plus ngeen jiite ay liste nit ñi topp seen ginnaaw bi xare jotee xeex jot kenn jiituwu leen ci fi ñuy terminer nag mooy xalifa Ababacar Sall ku ko xam-xam ni nitu jàmm ku xam Khalifa xam ni ci jàmm lay xëy ci lay gont xalifa sàll doxul dara ci lu nuroog ay ba ñenn ñi sax dafa am neneen nuñ koy xoole fekk na kilifa bu matee kilifa du def lu dul jëfi kilifa loolu moo rogalaat ba ci jëm ji danay nuru ni dafa nekkul di pànk-pànkul wala dara waaye yàlla moo dogal ci jëmmam ji comme ni xalifay doxale mu nekk nitu jàmm nekkul nitu ay nekk nit pacification koo xamante ni Dakar gërëm na ko madame la maire sa tour ñaar lañ koy boolee loyauté ak compétence loolu nag jàpp nañ ni le président Khalifa Ababacar Sall moom la tegoon bët ba teg la fi incha allahu rabbi ñi ngi rafet njortu ni ci ay bés yu néew di nga ànd ak le président Khalifa Ababacar Sall mu def kabam bu weex boobu nga def sa kaala gi

Fatou Sow Sarr nga xam ni woote na léegi jiite caucus bi ni lii madame Seynabou Wade wax lépp madame Nafissatou Wade wax lépp moom mi ngi gis boppam ci biir waaye bu sañoon mooy ñëw ndax jéem na def lu ne pour egsi mais jàpp na ni balaa moo egsi mu jeex suñu frère Bamba Fall bu Médina yónnee na ni Médina su ko teeloo a yëg Bamba Fall nee na nee su ko teeloon a yëg nit du des Médina waaye ñépp xam ni jëmm ji li mu defal xalifa sàll mu fekke ko li mu liggéeyal Dakar mu fekke ko la koy sampaat maire de la ville de Dakar moom ak ñépp danañ ci jàpp incha allahu rabbi madame la maire vous avez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 ce n'est pas prospère, ça ne va pas faire prospérer le pays. Nous sommes tous